mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay treize ci suratul isra ci suñu borom di waxee ni wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk yi ñu ngi dellusiwaat tey jii nga xam ni mooy àllarba bi nekk le 10 juillet ci 2019 ci tombeek le 7 ci zulqaada ci 1440 ci daje bi nga xam ni dañu koy dajewaat ak yéen ci téere bi yàlla bi fii nga xam ni mooy masjid saad ibn abi waqas ñu ngi sant suñu boroom ci dajale bi mu ñu fi dajale di ñaanal yàlla it mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo dox suñu diggante ña nga xam ne ñoo tasaaroo ci kaw suuf di fexe ba li ñuy daje fii de yegg ca ñoom na doon suñu mbokk yi nga xam ne ñooy waa xam su diini wala suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy waa Islam TV te yooyu ma la wax yépp it ay mbir la yoo xam ni yéen jullit ñi yéen a ko moom lu ngeen ma nit ci jàpp ca ca abonné wu ca loole da ngay gis ni bokk na ci jéego ci jot li la nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala kon ñi ngi daloon ci saaru mag wi di suratul isra alquran saaram yépp a màgg waaye nag am na ca yu ci gën a jege doomu aadama bi ci teete ko ci mbiru àdduna nag mbiru àllaaxira yépp loolu bokk na ca saar bi ñu tiim muy suratu suratul isra incha allah kon bu dee ne Cheikh Ousmane pare na dañ koy bàyyi mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه
ولا تزر وازرة
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم سبحانه وتعالى مني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه bépp doomu aadama day lënkale nañ ko la nga xam ne mooy dogal yay nara dal ci kawam muy tair wala nga ne muy gaafam lënkale nañ koog moom ca baatam ba wa nuxriju lahu yowma alqiyaama daan génne nag ñeel ko yowma alqiyaama kitaaban yalqaahu manshura téere boo xam ne dana dajeek moom muy lu ñu ubbi mi ngi noonu iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba ñu ne ko jàngal sa téere tey day doy nga ci sa bakkan doon koo xam ne yow rek yaay régler sa bopp man ihtada fa innama yahtadi li nafsi koo xam ne daa jub day dana jub ngir bakkanam wa man dalla fa innama yadillu alayha koo xam ne nag dafa réer kooku dana réer réer guy dellu ci bakkanam wala taziru waziratun wisra uxra du yenn mukk aji yenn kotu bakkaar la nga xam ne moom mooy bakkaarub keneen mi ngi noonu muy yenub keneen wa ma kunna muazibina xatta nabasa rasula ñun nag nekk ñu mukk ñuy mbugalaate lu dul dañoo jëkk a yónni ab yonent wa ida aradna an nuhlika qarya heure buñ demee ba bëgg alat benn benn dëkk amarna mutara fiiha fa fasaqu fiiha dañuy digal ña nga xam ne ñoo fa bew giijal fa ci alal ñu daal di yàq foofu ay génn fi ak topp fasaqu fiiha fa xaqa alayha alqawlu ci noonu la yee ca waa dëkk ba lii di kaddu borom ba fa dammarnaha tadmira su ko defee ñu mokkal leen ak mokkal mi ngi noonu tasaare leen ak tasaare wa kam ahlakna min alquruni min baadi nuux ma ñun ñaata lañ alak ci ay maas gannaaw yeneen ci yàlla nuux wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi xabiran basira doy na ci sa boroom nag ci bakkaari ay jaamam ku ci ñàkk kumpa waaye ku ci nekk di leen gis mi ngi noonu bokk doomu aadama dafa bokk ci ponki li nga war a gëm muy juróom benn mbir yi nga gëm amuk sa boroom gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm yowmal qiyaama waaye nga gëm ay dogalam dogal yooyu suñu boroom di dogal ci doomu aadama amul benn doomu aadama bu mën a génn ay dogalam keroog bi mu lay bind ci sa biiru yaay ba nga demee ba am ñeenti weer mu yónni malaaka ngir mu def ci yow ak ruux la santoon malaaka bi li nga war a dund lan muy sa wërsëg wax ko la nga xam ne muy say jëf doomu aadama boobu loolu yàlla dogal ci moom kenn mënu koo soppi bu doon te ne ni àdduna yépp dañoo daje woon bëgg laa teg benn lor ci yàlla dogalu ko àdduna yépp dañu lott ci loolu bu àdduna yépp dajaloon bëgg laa jox benn njëriñ te bokkul ci li yàlla dogal àdduna yépp dana lott ci loolu kon yow yaay dund dogalu yàlla léegi nag na ngay dug dunde dogalu yàlla ca la la yàlla di atte yàlla dogal na nekk nga góor yàlla dogal na am nga alal yàlla dogal na nga ñàkk yàlla dogal na ay tukki yàlla dogal na ay feebar dogal na nga am xam-xam dogal na amoo xam-xam ila axiri doomu aadama nag jaar-jaar yooyu muy jaar lu nekk suñu borom yàlla mi ngi koy bindal nam nam fa jaare muy téere boo xam ne heure boo ñëwee yomal qiyaama malaaka yi dajeeg yow jox la ko suñu borom wax nañu ci téeréem ne su dee na ko baax la malaaka yi dañuy dajeeg moom félicité ko tagg ko jox ko ko ci loxo ndey jooram su dee ne jaarul fa neex yàlla dañ koy doxee gannaaw daa di koy jox téeréem ci càmmooñam téere boobu it rasul sallallahu alayhi wasallam détaillel nañu ko nee na doomu aadama bu nekk amul bis bu yàlla sàkk lu dul bu fajaree yàlla day wàcc ci moom ñaari malaaka kii mi ngi bind lu baax li muy def kii di bind lu bon li muy def bu tàkkusaan jotee mu am yeneen ñaari malaaka yu ñëw ngir relever ñi fi nekkoon su ko defee ñooñu fi yend woon lem ñoom dossier bi yóbbul yàlla ñeneen ñi ñëw tàkkusaan ubbi ñoom it page bu bees fas yéene di jël li ngay jëfe ba ba fajar di jotaat loolee kon yowmal qiyaama lañ lay jox mi ab téere su ko defee nag suñu borom mu ne say jëfe ngoog loo def ci lu baax point yaa ngi ni di la xaar loo def ci lu bon point yaa ngi ni di la xaar léegi nag ku nekk yaay rek la sa bopp yaay xool sa téere ba xam ne yow day yeyoo nga ngërëmal yàlla bu ko defee nga daw woon ko say mbokk yaay xool sa téere ba xam ne échec nga su ko defee ngay woo sa toroxtaange woo sa alkaange loolu mbokk ku nekk ci ñun war a góorgóorlu di fàttaliku waxi omar ibnul xataab ba daana wax ay yéen nit ñi xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu ku nekk ci yéen niy wéet di xool boppam mais su doon dama dee tey nag te wallahi lu mën a nekk la wallahi lu mën a nekk la quel que soit loo mën a am ci sécurité loo mën a am ci wér-gi-yaram su neexee yàlla nga dee tey ku nekk ci ñun war na laaj mooy su ma dee woon tey man situation bi may dund sama wàllu adduna ak sama wàllu diine ndax maa ngi ci lu neex yàlla loolu mi ngi noonu su dee ne tontu la mooy naam ñaanal yàlla continuer ca waaye bu dee yëg nga ci yow loo xam ne bëggoo ko woon a dee yàlla dala waay tuub ko léegi jéem a teqalikoo ak moom léegi loolu mooy la nga xam ne mooy li war bépp julit suñu borom nag dañuy xamal ni képp koo xam ne dafa baax ngal la way na xam ne boppam la baaxal lu waral lii lan mooy yàq diini nit ñu jëkk ña commencé ci yonent yàlla nuux ba ci yonent yàlla isa ba ci diine ji ñuy dund diine lislaam mbokk fa seytaane gën a yàq diine nit ñi mooy nga am ñooy yaakaar ne ñii day ay nit yàlla lañu yaakaar gi nga leen yaakaar tax na ba la ëpp ci ñoom àdduna tey da ngay gis benn waay fakastalu fii ne yaa cheikh diw woo koo xam ne musu koo gis bàyyam sax musu koo gis buy waat waat ci sëñ diw kooku moom musu ko gis bàyyam sax musu ko gis noonu mu koy woowe ci àdduna it noonu la yaakaare su demee yowmal qiyaama moom loolu dana ko mën a yóbbaale ana ñaata yoon ngeen dégg ci loo xam ni na doon ci ñun ak keneen man de seede naa leen benn góor taxaw naa mu taxaw ci mbooloo mu ne Sénégal yéeféer yi sax àjjana lañ jëm ngir liggéey bi sëñ jëw liggéey yële yàlla loolu mbokk la chaque ne gis nañ ko ay kilifa yu mag yu nekk ci réew mi suñ ko waxee ñépp dégg leen ñuy wax ne sëñ jëw day mas naa toog bu mu jëmul rey ah bi loolu amee gaa yi jaaxle gannaaw ñu ah sëñ bi de dañ laa gis nga def loo miiñul dañ laa too gis ngay rey mu ne waaw dama mas a am problème ndax ñu bëri ñi ma yaakaar xam naa jaamuwuñu yàlla waaye jibril daf ma dikkal ne ma sa borom nee na sa jaamu gi nga koy jaamu yàkku la gëm dana leen boole tabbal aljanna mbokk lii mooy suñuy lépp mooy suñuy légende mooy suñuy wax yoo xam ne noonu ñu koy waxee li ëpp ci nit ñi noonu lañ ko gëmee ba moo tax seen yaakaar bi gën a rëy allaxira ndax mooy li ñuy jaamu yàlla déedéet kii mi ngi yaakaar sëñ sekk kee njaay kee saar kee joxumpa kee mbàkke kee si kii ay dara kii lu nekk ñu yaakaar ko sauf yaakaar seen borom sauf yaakaar jëf ju baax ji borom bi nag mu ne déedéet ki baax boppam la baaxal moo tax dana jël doomu yonent dugal sawara muy nuux jël bàyyi yonent dugal sawara ibrahim jël soxna yonent dugal sawara luut ak nuux lii lépp borom bi mu ñu koy wax ngiree ku nekk ci ñun jéem a jubal boppam njëb ga mooy lan fexeel am al imaanu saxiix ngëm gu wér te dëppoog la nga xam ne muy sunna yonent bi waaye ci mbaaxamit borom bi nee na ku réer boppam la réeral te loolu nit ñi duñ ko nangu boo nangoo ne sëñ diw lam liggéey ñun daan ci dugg kon kay criminel yi nga dëkkal war ngaa jàpp ne ñoom it yàlla dana la dugal sawar ngir ñoom déedéet mbokk suñu borom sa bàyyi bu bonoon ba mel ni firawn loolu du tax ëllëgi ki si biir ñu atte la ci loolu sa doom lum bon bon kenn du la atte ci loolu sa frère ak kum mën a doon nit ki mbon mbon gi ci moom la yem borom bi nag dañuy xamal ne allaxira amul kenn koo xam ne yenu kotu bakkaar nga ngay xalaat di yenul keneen ay bakkaaram déedéet wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minha minhu shay'a amul kenn koy woo wallu yowmal qiyaama ndax dooma gàddul benn bakkaar wala may na benn tiyaaba mu lay nangul ci loolu xanaa kay lay mën a am mooy la borom bi di wax wala yaxmilunna asqaalahum wa asqaalan maa asqaalihim doomu aadama bi day dana dolleeku bakkaar ngir keneen waaye du yeñul keneen bakkaaram masalan benn waaye ngi xamul luy sàngara yow yaa ñëw man ma ne ko ba yóbbu ko mu naan sàngara kookee ba ila yawmi diin fii mi ngi naan sàngara bakkaar yi mu am ca naan sàngara ba yow dañ ko boole say bakkaar bindal la ko waaye ndax dana wàññi ci ay bakkaaram moom dara laa du wàññi ci moom ay bakkaaram dara noonu it la lu baax mel waa ji nga xam ne xamul woon luy dem jàkk nga naxanteeg moom yow doomi jullit bu su ma yaa ngi dégg nodd gi e way kaay dem julli ji ba convaincre ko heure bu jógee te këram jëm ca jàkka ja même bu doon dee nga téeméeri at tuyaaba ja ma ngi lay fekk si ndax tuyaaba joojee di la fekk si day wàññi tuyaabam dara déedéet du wàññi ci tuyaabam dara loolee kon mbokk la julit war a xam borom boobu nag ne du ma mbugal benn xeet du ma mbugal yenn nit lu dul dama leen a jëkk yónni ab yonent na am mbokk julit léegi muy question bi ñuy posé mooy question ñi nga xam ne nag mosuñoo dajeeg yonent wala ñi nga xam ne daje nañoog yonent mais dee nañu avant ñuy majeur wala ñi nga xam ne bi yonent ñëwee ñoom dañoo def wala màgget yi nga xam ne dem nañ ba naax ñooñu lan muy seen mbir mbokk ñooñu lay seen mbir mooy ñëw na ci xadis yu wér rasul sallallahu alayhi wa sallam ne ñooñu nga xam ne dañoo dee ci fatra ñooñu nga xam ne dañoo dee ci digguñu woote bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam te xatta sun jamono tey ji aka bari aka bari ñu tasaaroo ci dëkk yi mosuñoo dégg lislaam ñooñee ku ca dee yowmal qiyaama la la yàlla di yónni yonent yonent boobu mu ñëw mu ne seen borom yàlla nee na ngeen dem tabbi ca sawara sa suñu borom borom xikma bi ña nga xam ne wóoroon na ko ne bu yonent daje woon ak ñoom àdduna ñu gëm ko ñooñu dañuy jóg ne ñun suñu borom lum ñu digal ñu def daa di riir dem dugg biir sawara suñu borom defal leen ko nam ko defal woon ibrahim mu nekk ci ñoom bardan wa salaama amma ña fa nekkoon nag di contesté naan yàlla dañuy digal lu ñu man suñu borom buub leen yóbbu leen sawara loolu moo tax mu ne wa ma kunna muazzibin xatta nabasa rasula nekk ñu di mbugal lu dul dañoo génne yonent imma yonent bi ci àdduna wala fi arsaati yowm alqiyama mooy fa yàlla di attee jaam yi ca yowm alqiyama borom bi nag di wax ne heure bu nemmee ci alak ay nit ña nga xam ne ñooy borom alal ya borom nguur ya ñooñee lay dégal ñu yàq dëkk ba na doon amran qadriyan mooy dogal boo xam ne da ko dogal fokk ñu def ko wala mu jox leen ay ndégalam ñu may ko su ko defee nag kaddug yàlla yey ci ñoom ay borom bi du mbugal mukk dëkk lu dul dëkk ba lañ koo yeyoo mi ngi noonu ma kunna muhlika alqura illa wa ahluha zalimun fokk waa dëkk bi dañuy jëkk a jalgati la yàlla subhanahu wa taala santaane woon su ko defee nag mbugalam doog a ñëw mbokk suñu borom waxul waa dëkk ba yépp lay ñooy dugg ci mbon waaye day wax mutra fiha loolu it moo tax ba ak mbon ku ne war na koo moytu waaye ku nekkit war naa xool fan la mbon di jóge lu mën mu def ko ca wala lu mën mu wax ko ca bokk na semaine bi lu ñuy dund musiba bu rëy mooy musiba góor jigéen yu bon yu sobe yu salte yooyu nga xam ne falilahi alhamd nature africain noir dafa bañ góor jigéen avant ko ko benn diine di tere ci kaw suuf demal ci ñi gën a sori ci biir àllu afrique yi xamuñu luy diine mais góor jigéen yàlla da leen ko bañ loo amma tubaab bu bi nga xam ne tey ñoom ñoo yor xalaatu doomu aadama yi jàpp ne àdduna bi benn pensée unique la war a am góor jigéen googu dañ koy tasaare fu nekk su ko defee nag dañuy utiliser la yàlla waxoon cheytaan wastafziz man istataata minhum bi sawtik cheytaan yi utiliser sa kaddu gi kaddu googi bokk nañu ko doon firil ko mel ni abdullah ibn masud dane mooy alghina te mooy woykat yi woykat yu bon yooyu nag tey jëli nga gis góor jigéen yu bon yooyu tànn nañ ci kenn koo xam ne ci ñi gën a fëll la muy ab woykat bàyyam di woykat ñëpp xam ko ñu koy finance mu def des concerts publics gratuits xale yu jigéen yi góor yi di xëm kooku la ñu wane la nga xam ne mooy t-shirtu góor jigéen yu bon yooyee nga xam ne mooy t-shirtu arc-en-ciel mooy mag yi dañoo xon mooy bu tawee am na luy feeñ ci ko asamaan def benn rond ci am lu mat ay 4 à 5 couleurs loolu mooy siñu ñu bon ñu sabe wooyu ñooñu la jël seen tiset ci concert am loolee ngir jàngal sunu jeunesse bi la nga xam ne mooy tolérer ak bëgg cause góor jigéen yu bon yooyee loolee mbokk nañu xam ni fitna la boo xam ne ku te waxul seetaan ko conséquence bu ëllëgi ko si biir du yem ca ñoom rek borom bi nee na amar na mutrafiha dañuy digal say say sa fa fasaxoo fiha ca bu mbugal bi dee ñëw dammar nahum tadmira dëkk bi yépp ñoo koy bokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi joxe ci ay misaal ñaata nit ñaata xeet laa alak gannaaw nu waa aada nge waa samu da nga ni loolu may wax muy góor jigéen gu bon googee ngóor soosee di manifeste sunu kanamu jeunesse bi lii di xaw mu luut lan moo taxoon yàlla alak leen alkaange goo xam ne mus koo alak benn xeet bu mu alak ndax xaw mu nuux da leen alak xaw mu huut xaw mu saalax amma xaw mu luut yàlla yemul ci alak leen mooy indi ay xeer mu taw seen kaw waaye dafa déq ci région bi dëpp leen ngir effacer leen ci ci suuf loolee kon ngalawaay nañ ci bàyyi xel yàlla na yàlla laabal ñu ca laabal suñu ndaw ñëpp mi ngi noonu Cheikh Ousmane fikum suñu borom mu ni man kana yuridu al-ajila koo xam ne daa bëgg lu yàkkam ci lii muy dunduk àdduna ajjalna lahu fiha ma nasha daañ ko ca yàkkamtil gaawee ko ca lu ñu ca neex liman nuridu ñeel ku ñu neex ci jaam yi summa jaalna lahu jahannam waaye gannaaw ba ñu defal ko jahannam yaslaaha mu daal di cay weeru mooy tëdd ca masmuumam madxuura doon ku ñu toroxal doon ku ñu dàq ci yërmande yàlla wa man araada al axira koo xam ne nag daa bëgg alaxira wa saalaha sa'yaha mu liggéeyal ñeel ko layeyoo ñu liggéeyal ko ko wa huwa mu'min ca mu boole ca gëm yàlla fa ulaika kaana sa'yuhum mashkura ñooñu de seen liggéey ba seen jëf ya dana doon loo xam ne lu ñuy gërëm lay doon waaye kullan képp ci ñoom ñaar ci ñi bëgg àdduna ak bëgg alaxira yépp nu middu ku nekk daañ ko dooleel ay dolli ko jox ko haula na doon ñii wa haula ak ñii ñépp min atai rabbika ci la nga xamee ne mooy samay boroom wa ma kaana ataau rabbika mahzura samay borom day nekkul loo xam ne lu kenn di mën a fanq la ay di ko fekk unzur kayfa faddalna baadahum ala baad xoolal niñ gënalee lenn ci ñoom ca la ca des wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila alaxira nag moo gën a ka màgg ci ay daraja moo gën a màgg ci ay gënalante la tajal ma allahi ilahan axar bul defal yàlla mukk yàlla beneen fa taquuda mazmuman maxzula kon day da nga toog doon ku ñu yedd doon koo xam ne nii ku ñu seetaan la ay bala doo am kenn ku lay dimbali muy maxzul mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ni ci bëgg àdduna nga xam ne jëfam yépp mooy fexe ba àddunaam kese baax nee na daañ ko jox ca àdd àdduna yi ci àdduna lañu ca neex ñeel ku ñu soob loolu lu mu ñuy jàngal mooy ndekete bëgg àdduna taxut am àdduna bu doon loolu agresseurs yi ñooy nekk milliardaire sàcc si ñooy nekk milliardaire càgga ji jaay seen bopp ñooy nekk milliardaire waaye déedéet mbokk loo fittirlu fittirlu loo bew bewit du tey àdduna doo ci am lu dul lu neex yàlla abadan borom boobu subhanahu wa taala nag ni gannaaw ba yowmal qiyaama danaa ko tabbal sawara mu daal di fay nekk koo xam ni ku ñu yedd la mazmum koo xam ni ñépp a koy xeeb toroxal ko ba pare soril ko encore yërmande yàlla ku mel noonu mbokk da ngay gis su deente ne am na àdduna àdduna joojee lan la koy jëriñ wallahi du ko jëriñ dara rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama dañu indi ci ki gënoon a xéewlu ci kaccoor yi ki gënoon a xéewlu ci kaccoor yi dogal ko biir sawara génne ko gannaaw ba malaaka yi laaj ko naka yow bi la yàlla bindee ba tey masumaa gis xéewal mu ne abadan ba ma yàlla bindee ba tey masumaa gis xéewal ci benn minute bi mu def sawara kon kooku perte na amma nag bu dee yow da ngaa boole woon mooy yàlla ba pare ci amoo àdduna perte nga ñaari yoon sun mag ñi dañ ko doon wax mooy ndóol lu toppul yàlla yow ndóol nga ci àdduna ba pare toppoo yàlla te gaa yi nettali nee nañ naar ba daa gis lafañ bi raam raam ba ci baar bi jënd benn bitelu sàngaraam di naan mu ne ko yaa xay àdduna yàqu la bul yàq alaxira yaa ngi dégg dégg nga loolu mooy mi ngi noonu ala kulli xaal loolu mu lay jàngal ngalla way ndawal julit bul yàkkam ci sa war a sëkk bul njuuj njaaj bul sàcc bul wor munoo fexe ba am lu dul yàlla dogal ci yow loo bari ci nit ñi dañuy yàkkam ci seen wërsëg rek waaye gis wërsëg yow boo teeyoon fokk da nga ci jot jeex na borom bi nee na liñ na li ma soob rek ay am ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuri munoo am leneen lu dul yàlla dogal ci yow kon kay teeyal rek mi ngi noonu mi ngi noonu borom boobu nag daa jëlee am maana ki bëgg alaxira ki nga xam ne moom gëm na ni àllaaxira luy ñëw la da ko war a waajal bu doon tene ne foofu rek la mbir ba yem ak a doon neex ca mooy képp ku bëgg àllaaxira rek boo liggéeyee la àllaaxira yàlla nangul la doo ko ak a doon neex waaye déedéet suñu borom da caa teg benn charte mooy mu liggéeyal àllaaxira la àllaaxira yeyoo ñu liggéeyal ko loolu mi ngi noonu soo demee ci yahudiya am na ca ñu sincère di liggéeyal àllaaxira nasaraan yi ñu sincère di liggéeyal àllaaxira julit ñi ñu sincère di liggéeyal àllaaxira waaye ndax liggéeyal nañ ko lam yeyoo ñu liggéeyal ko déedéet li ëpp ci doomu aadama yi lañ gën a sonn ci seen wàllu diine mooy ay bidaa ay xuraafaat ay shirk yu dul jeex loolu mbokk yàlla du la ko fay bal loolu dalay soril ngërëmal yàlla jalla waala loolee ñu bàyyi ci xel bu baax allaaxira lañ ko war a liggéeyal suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo koy tëral mooy amilu salihaat jëf yu baax yi lan mooy jëf bu baax mooy lu yàlla ne baax na ab yonentam ne baax na waaye du lu xelu doomu aadama ne baax na loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war a góor góorlu ba ngalawaay di moytu lu koy yóbbu ci ay bidaa fexeel ba diine ji loo ci defal yàlla mu leer na la ne teg nga ko ci loo xam ne yonent bi alayhi salaam ak i sahabaam day dañ daan dund lu mel nii bu boobaa day suñu borom nee na ñu mel nii borom bi nee na mboolem jëf yi ñu jëf dana doon loo xam ne lu koy sant la te muy charte yaa ngoog àllaaxira tax ngay def def nga lu yàlla digle ba nga koy def dangoo gëm suñu borom nee na jëf ba lu mu tuuti tuuti danaa ko sant looloo tax benn waay day jëf benn jëf lu mu néew néew yàlla ful ko ñetti fukki yoon ba juróom ñaari téeméeri yoon bu ñu demee ci cëppaandaw ga mooy yow dunduk àdduna boo fi defoon junni at it mbokk loolu néew la par rapport ak ajjana jalay xaar nga xam ne amul fu mu yem loolu du dara lu dul sant gu yàlla sant say xéewal la borom boobu nag jàll wa ala ni amul kenn ci ñi baax wala ñu bon lu dul ku nekk danaa ko jox ci samay xéewal ndax sa xéewalu boroom bu dee ci àdduna amul lenn lu koy fonk te loolu mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla firawna taxaw na ci peuple am ne xamuluma leen benn yàlla bu dul man taxaw na ci peuple am bàkku ci seen kanam lu ne mu wax ko ndax yàlla da koo rey ci saa si déedéet yàlla nga koy bàyyi di ko jox oxygène am di ko jox ay xéewalam ba bis deeyam doo ko jot naka noonu itamit yow doomu aadama xamal ne du rek ne li ñuy natte àdduna li ñuy natte diine mooy ñii dañoo nekk ci xéewal ñi nekk ñu ci xéewal déedéet mbokk réeglu àdduna mooy suñu boroom mboolem waa àdduna ku nekk am na lum la jagleel nattoo la ko ba baasa bisu dee di ñëw gannaaw ba nag mu daal di leen di xisaab xisaab bu yeyoo ak ñoom te it yow mi gëm li sa borom wax wa ma kaana ataau rabbika mahzura mooy firi it lañ ubbee woon li la yàlla nar a jox kenn mun la koo xañ walla waay gëmat loolu sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk sa bakkan ci loxo yàlla la nekk dund gi ngay dund kenn mënu la koo xañ wërsëg wi nar a ñëw kenn mënu la koo xañ amul lenn loo xam ne sa borom moo ko joxe ab jaam di ko fanq abadan donc te ne contraire bi loolu lay jàngal mooy lu yàlla joxewul kenn mënu koo joxe wa ma kaana ataau rabbika mahzura borom bi nag ngi xamal ñu ne moom dong mooy joxe mun a xool lim seen bopp unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd mbokk xoolul nit ñi tey da ngay gis ndeysaan koo xam ne weer wu dee ba kër këri ba kër këri vingt mille francs lay mën a am am na koo xam ne nii moom mën na dem ba cent mille am koo xam ne mën na am un million par mois am na koo xam ne sax dana am un milliard par mois di football club caaxante di dem plus de 1 milliard par mois naam loolu mi ngi noonu nga dem tey jii ci nit ñi kii chauffeur la kii gardien la kii employé chef de service chef de département directeur ministre ila axiri loolu mbokk suñu borom moo koy dogal ci ay jaamam et puis day nekk loo xam ne du am benn raison gars yi millionnaires yi lu tax ñu nekk des millionnaires milliardaires yi pourquoi ñu nekk des milliardaires ndax dañoo ëpp nit ñi xam-xam déedéet la ëpp ci ñoom mosuñoo toog université ndax dañoo ëpp doole déedéet ñoo ëpp ci ñoom mosuñoo dugg ci lamb wala box kon mbir yi yàlla moo koy def nu mu ko neexee suñu borom nag mu ne gis nga àdduna ni catégorie yi bari uute alaxira moo ko ëpp ay catégorie bokk na luñ ci yeneen tibi alayhi salaam wax nee na aljanna téeméeri daraja la yu tegaloo mu ne ña nga xam ne mooy ashaabul janna la yataraawuna ashaabul ghurfa kama tataraawuna al nujum fi sama nee na waa aljanna téeméeri daraja la mais tey bu ñu xoolee cent mooy daraja cent dañuy seen waa quatre-vingt-dix-neuf comme ni ngeen di seeni biddiw yi waa 99 di seen waa 98 naka noonu naka noonu ba nga yegg ci waa deuxième classe di seen waa première classe ca mooy firdawsil ala fa yonent yi ak siddiqune di dëkke yàlla na yàlla boole ñu ca ñun ñuy féete kaw noonu la muy téeméeri daraja loolu nag mbokk mu ñuy jàngal kon yow julit nga yaa ngi góorgóorlu ci diine ah loolu day yaa ngi ci yoonu àjjana waaye nag konkuural ngir yeyoo daraja yee gën a kawe wala borom bi wax ñi doon jihaad fi sabilillah nee na du yem mukk julit ñi gëm toog seen kër ak ñuy jihaad fi sabilillah mu ne kullan waada allahu alxusna waaye wa faddala allahu almujahidin ala alqaidin yàllaa ngi waajal daraja yu kawe ñuy jihaad fi sabilillah ci kaw ña nga xam ne dañoo toog loolu mbokk la borom bi subhanahu wa taala di wax gannaaw ba nag mu joxe benn ndigal mu ne ay yow jullit bi fexeel ba bul wutal yàlla mukk yàlla keneen koo koy booleel mbokk yàlla ak nga la way nañ ko génne ci suñuy waxin yàlla rek la jullit di yaakaar waaye yàlla ak diw loolu mbokk jullit bu xam du ko wax mukk bul wutal yàlla benn nen suñu borom nee na loolu de bis boo ko defee yàlla ci boppam dana la dàq ci yërmandeem ca kooku nga koy booleel du la mënal dara gis ngeen moo tax suñu borom ne bu boobaa day yow da nga toog doon mazmum koo xam ni yàlla dana la yedd ay malaakaam yedd la nit ak jinne yedd la ba pare nga nekk mahzul ndax yàlla ma nga doon woo maadaama bala nga ko keneen sànni na la keneen ka nga xam ne moom nga doon wocce du yàlla ku mel noonu yowmal qiyaama day den ci yow mi ngi noonu mbokk yàlla na yàlla musul ñu koy bokkaale
Yeah.
xayra suñu borom mu ne kon wa qada rabbuk sa borom yàlla dogal na alla taabudu illa iyaa ci ngalawaay bu leen jaamu ko dul moom wa bil walidayni ihsana ca ngeen def njëkk jëm ci seeni wayjur imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma su dee ne nag jot na ci yow lii di ak mage kenn ca ñoom aw kilahuma wala ca ñoom ñaar ñépp fala taqul lahuma uf ngallawaay bu leen wax kàddu gi gën a gàtt muy uf wala tanharhuma te bu leen gëdd mukk wa qul lahuma qawlan karima te deel wax ak ñoom del wax ñel leen kaddu goo xam ne gu tedd la wax fit lahuma janaha zulli min arrahma ngalla way wàcceel ñeel leen lii di laafuk torox toroxlu ci yërëm nga nga leen di yërëm wa qul rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira gannaaw ba nga lan ay yàlla yërëmal samay waajur niñ ma yërëme niñ ma yere woon ba ma nekkee ndaw rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla moo gën a xam li nekk ci seen bakkan yi in takunu salihin su dee nekk ngeen ñu ay nit ñu yiw ñu baax fa innahu kaana lil awabina ghafura moom day dana nekk ñeel ña nga xam ne dañuy dellu ci yàlla muy aju ku leen di jéggal wa aati zal qurba xaqa ngal la way joxal aji jega ñaale ji lii di aqam wal miskina wabna sabil ca jox ko miskine jox ko ña nga xam ne mooy doomi yoon étranger yi nekk ci dëkk bi wala tubazir tabzira waaye nag bul yàqate ak yàqate inna al mubazirin la nga xam ne mooy yàqkat yi day kaanu ixwaana shayatin nekk nañ doomi ndey cheytaan wa kaana cheytaanu li rabbihi kafura cheytaane nag nekkoon na ci boroomam di aju ko koy weddi mi ngi noonu mbokk suñu boroom dañuy jox ay ndigalam ndigal yooyu mu ubbee ko ni sa borom dafa dogal dogal boobu mooy décret tey ci lii ñu miin léegi-léeg nga dégg ñu ne le préfet a décrété wala gouverneur décrété wala ministre de l'intérieur décret bi gën a mag mooy lu président de la république jël nga xam ne day engagé nation bu nation bi yépp amma mbokk suñu borom mi borom asamaan ak suuf mi ñi moom moom moo dogal ci ay jaamam loolee mu jaarale ko ci yonente bi alayhi salaam mu ne rabbuk te mooy dogal yooyu yonente yàlla bi moo ko war a jottali su ko defee ngallawaay lépp lu ajooti ci dogal yooyu dañ koo war a def ngir yàlla waruñu koo def ngir yonente bi waruñu koo def ngir ma sàmba wala ngir ma demba yàlla muy dig lañu def ngir yàlla la nga def ngir yàlla rek la la yàlla di fay la nga bàyyi ngir yàlla rek la la yàlla di fay amma lépp loo def ngir keneen lépp loo bàyyi ngir màggal keneen da ngay sonal sa bopp doo ci am dara borom boobu lan la jëkk a dogal nee na bu ñu jaamu keneen ku dul moom te loolu mooy la gën a màgg lu doomu aadama di war a ittiwoo ci kaw suuf mooy xool baa moom ci ay waxinam ci ay jëfinam lenn loo xam ne shirk am na ca gannaaw ba suñu boroom bu doon am na kuñ ko war a bokkaaleel ci kaw suuf wallahi boroom xel yi buñ doon bokkaale yàlla seeni waajur dong la ñuy bokkaale ak yàlla mbokk waajur lim la defal kenn defalu la ko sa yaay fi mu jaar ak yow ëmb la juróom-ñeenti weer keroog bi ngi juddu mi ngi noonu ñaata jigéen ñooy dee bi ma mujjee dégg en Afrique rek dañ naan zéro cinq pour cent dañuy dee bu ñuy wasin te mooy mille femmes yi accouché cinq yi dañuy dee moo tax sunu maam yi dañ daan wax naan diw mucc na biig mi ngi noonu loolee yaay jaar fa ak yow gannaaw ba bàyyi ñëw ak i coonoom su doon am nga koy bokkaale ak sa borom say waajur rek la war a doon waaye mbokk way jur yooyu suñu borom dane nañ def njekk jëm ci ñoom alxasan mooy lu baax ihsaan nag mooy lu gën a baax la gën a rafet xoolal lépp luy njekk luy rafet def ko ak waajur yooyee ak âge buñ mën a toll même bu doon ay yéeféer lañu defal ak ñoom njekk rawatina nag buñ demee ba magee suñu borom nee na suñu magee ci yow loolu it mbokk bàyyil xel yow la jeune intellectuel xamal ne tubaab bi bi mu ñëwee am na pexe yu ñu def ba indi li ñuy tuddee destruction de la famille ndax mooy tasare famille yi ndax yàq gi ñu bëgg a yàq tant que famille yaa ngi ànd di booloo loolu day jafe waaye bu ñu leen tasaaree lu ñu bëgg ci ñoom am ko looloo tax ba tey intellectuel yi ku ci ni jëjeet takk soxna la ngay jëkk a xalaat dem bari sa appartement bopp bàyyi waajur yi fële waaye déedéet xamal ne waajur defaloo ko lu gën dëkk ak moom rawatina bu magee ki dem ba amay quatre vingt quatre vingt dix ans day toll foo xam ne soxlaatul yére bu rafet soxlaatul lekk gu neex soxlaatul lu bari xam nga lu mu bëgg affection ku koy jege di ko yërëm ba tax suñu borom ne indaka heure bu demee ba magee ci yow kenn ci ñoom wala ñoom ñaar ñëpp borom boobu subhanahu wa taala mu ni ngal la way bu leen wax uf uf mooy kaddu gi gën a gàtt ndax doomu aadama bi lu muy gën a avancé ci âge maîtrise am day wàññeeku day gaaw a mer day gaaw a xiif day gaaw a réagir loolu nag boo moytuwul rek yow da nga déraper lu tax mooy da ngay am coono ci mën ko ci gérer ko waaye suñu borom ne lu mu mën a doon bu mu tax mukk nga ne ko uf bu mu tax mukk nga koy gëdd ay yëkkati sa kàddu ci kaw kàddoo léegi nag luy pexe borom bi ne waxal ak moom wax bu tedd qawlan karima bokk al karim mooy kiy def njekk boo xam ne soxlawu ci retour soxlawu ci lu dul ngërëmal yàlla qul lahuma qawlan karima ca loolu it yow jeune intellectuel bàyyil xel loolu bari na ci ñoo xam ne sax daañ dëkk ak seeni waajur naam waaye dañuy jël néeg ba gën a ruqe wala aj ko ci kaw étage ba ba nga xam ne seeni xarit ak seeni visiteurs yi ñëw ci kër gi kenn du ko gis mbokk loolu day tax ñuy gaaw a naax bal suñu borom nee na qul lahuma toogal ak way jur yi del waxtaan ak ñoom mi ngi noonu loolu mooy lim gën a soxla ci kaw suuf qul lahuma qawlan karima borom boobu subhanahu wa taala dolli ci ne ngal la way wàcceel say mbagg ci kanamam janaahu zulli min arrahma ca mooy melal na ab jaam ci kanamam mel ni un soldat ci kanamam toroxlul ko ci kanamam loolee mbokk da ngay gis ne doomu aadama yi tey kan lañ koy defal mooy ñi ñuy tudd ay sëriñ ah suma mbokk inspecteur sambi mii toog sama gannaaw nettali na ma bi samedi bi paasa day mi ngi noonu wala matagul sax quatre jours ala kulli xaal benn dëj bu mu nekk ci seen koñ kilifa ga fa ñëwoon du góor jigéen la bu yor santu santu sëriñ yi ci Sénégal mais nee na bi mu ne bi oto bi gaaree bâche bi mag ak ndaw góor ak jigéen ñépp a doon raam ci tali bi raam fii bu ñu yuuxoo yéen ngeen dégg leen fii fii laa la wax soriwul dara loolu la nit ñi di defal mbir yi mooy wax fit lahuma janaha zulli lool torox torox googu yàlla waxoon nañ ko defal way jur yi tey moom la ñuy defal ñoo xam ne wallahi amuluñ leen njëriñu àdduna amuluñ leen njëriñu àllaxira loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom nag waxul nga raamal ko wala nga nàngam waaye jox ko cër jox ko respect ak loo mën a am ci gratu kaw suuf gannaaw ba it nga yit ne sa waajur yooyu mënoo leen a fay kon luy pexe pexe bi mooy suñu borom mu ne boole ci di leen ñaanal waqul rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira yàlla yàlla na nga yërëm samay waajur comme niñ ma yare woon bi may ndaw boo fàttalikoo ba ngay ndaw rek da nga yërëm say waajur boo fàttalikoo keroog dans deux ans yi nga def sa gannaawu yaay booy dem douche booy saw lépp ci ay yéreem nga koy def coow na ba nga xam ne teg nga ko say waajur boo feebaree ñu feebar guddi du ñu bëgg a nelaw nga ne du ngeen fi nelawee ila axiri soo xalaatee loolu ba baa ñu lay dugal nga jàngi ba baa ñu lay yor ba baa ngay tolloog ñoom wallahi loolu boo ko fàttali ko foog nga am yërmande si ñoom bu dee doo baa doola kon qul lahuma qul rabbi yarhamhuma kama rabbayni saghira loolu mi ngi noonu way juróom mbokk dañ koo war a bëgg dañ koo war a yërëm dañ koo war a déggal fii yëg déggaluñu lu xaraam wala loo xam ne dañuy lor waaye fii yëg waajur mi ngi lay digal loo xam ne xaraamul ca du la lor da nga ko ca war a topp loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag ne su dee ne da ngeen doon ñu baax ñay dellu si ci moom dañu leen jéggal te loolu mooy li mu wax ne buñ ko bokkaale képp ku nekkoon ci bokkaale soo tuubee yàlla dana la baal waajur yaa ngi ni nee na bu leen def ci ñoom lu ñaaw ku yëgoon ne def na ci lu ñaaw ci waajuram suñu borom subhanahu wa taala boo dellu si dana la baal loolu kon innahu kaana lil awabina ghafura loolu it mbokk ñu bàyyi ci xel njëkk googu yàlla wax ci waajur yi boo ko yemele ci seen dund de benn waay benn waay ñëw na ci yenente bi salallahu alayhi wa sallam ah li ngay wax ci njëkk gu waajur day yéeme na waaye man samay waajur dañoo faatu nu may defale ci ñoom njëkk yenente bi alayhi salatu wasalaam ne ko foo toll dee leen ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla jéggalul leen borom xam-xam yi dañu naan génn saraxoo ajal ko loo ko mën ne defal ci say waajur lu baax la de waaye la gën li ngay defal waajur mooy ñaan ndax sarax yaak aj maaka ak yépp la muy indi benn ñaan mën na koo remplacer am déet tey jii masalan su ñenente alayhi salatu wasalaam nee na képp ku faatu mboolem ay jëfam dagg na ba mu des ñett lam ca jëkke mooy doom ju baax ju koy ñaanal tey doom ju baax a ngi julli nga ba pare ey yàlla samay wayjur yàlla na nga leen jéggal yërëm leen defal leen jannatul firdaws ngi seen wàccuwaay yàlla nangu ñaan gi jeex na am déet loolu kon ngeen di ci bàyyi xel bu leen xëy mukko ca ñaanulu leen seeni wayjur boo sujjootee del ñaanal sa wayjur foo sa xel demee ci ñoom del ñaanal say wayjur loolee da ngay gis ne balla buy dillu si ci yow amul looy defal say wayjur ci njekk lu dul bala ngay dee da nga ko gis amul looy defal say waajur ci lu ban lu dul bala ngay dee yàlla dana la ko won loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee njëkkug waajur ay xutbaa ci conférence la laaj borom bi nag daa di ne wa aati zal qurba xaqa joxal ma jege ñaane yi seen aq jox ko miskin yeeg doomi yoon yi ca bul yàq ak yàq mbokk jege ñaane yi li la yàlla wërsëgal dencee am aq gis nga yàlla waxuñu ñu jox leen ci suñu mbaax déedéet yow nekk nga ci benn famille yàlla may na la alal alal joojee ñi ci nekk ca néew doole yépp yàlla dana jël ci di leen jox loolu seen aq la ñoo ko moom boo leen ko joxul da ngay am problème sa digganteeg sa borom jox leen seen aq bu dee ci wàllu alal jaa jox leen seen aq ci di leen nemmeeku ak lu deme noonu mbokk julit ku ne war nga koo defal njëkk waaye nag ña gën a yey mooy ñi la gën a jege ca loolu dafay topp ay waajur ki gën a jege say waajur moo gën a yey ci yow ci àq looloo tax ña ca jiitu mooy say frère ak say sœur gannaaw ba bajjani ñëw ak tante ya gannaaw ya sët yi ñëw ila axiri mooy ku la gën a jege ci sa wàllu waajur kookee bokk na ci def njëkk ci say waajur mooy nga jokk mbokk yooyu nga xam ne waajur yi ñoo tax nga bokk ak ñoom waaye gannaaw loolu it mbokk julit yàlla def société bi ñii mu jox leen lu ëpp seen aajo ñii xëy suba di uti lu ñu añee ngan la waay ñooñu jël leen jox leen léegi-léegi nit ñëw tumuranke ci réew mi mi ngi noonu suñu borom mën nañu mel noonu jox ko waaye jamono bi ngay joxe it bul yàq ak yàq yàlla bëggul yàq ndax yàqkat yi mbokk seytaane lañu mbokk yàq bi jiitu ci yàq mooy def fu xaraam cent franc bi nga def ci lu xaraam yàq la mi demoon ca bitig ba jënd fa cent franc cigarette wallahi yàq bu rëy mi ngi noonu gannaaw ba nag li dagan nga def ci lu ëpp ngi noonu tabax kër lu baax la farata la jaamu yàlla la waaye kër goo xamee ni nii tey jii fas yéene woo fa dëkk lu dul xanaa yow yaa sa soxna ak sa quelque doom nga xam ne tey jii day boo fa defoon tey xëy na vingt millions da nga am kër goo xam ne kër gu baax la nga dem daal di jël lu mat cinq cent millions def ko ci bon loolu yàq la yàq dana nekk ci yére yàq dana nekk ci alal ci ci la ngay lekk te mooy lépp loo xam ne dépense normale na ca nga jégg ca dayoo suñu borom nee na ku mel noonu la yaa ngi nuru nuru lu cheytaan te cheytaan day dafa weddi woon boromam mbokk lii fukki ndigal la ak juróom-ñaar yoo xam ne nii tey jii jël nañ ci yi incha allah bu ñu fi yàlla dajalawaatee daañ ko mottali yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi mu gërëm defal leen jàmmi àdduna defal leen jàmmi alaxira te nar leen a dëkkal ci firdawsil aala defal ko suñuy waajur ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain je da ngay wax benn rek ñu ñeneen wax leneen wa shamsu tajri li mustaqarin laha loolee da ngay gis ne la ca gën a wér mooy suñu borom subhanahu wa taala moo tàggat jant bi mi ngi daw ca daw boobu am na fu mu war a yem heure bu yeggee fa mu war a yem suñu borom daal di koy wékkee wala borom di wax naan isa shamsu kuwira loolu mooy la nga xamee ne nii mooy la ci gën a wér soo dellu woon ci yenn tafasir yi nag dañ la ca wax ay wax yu kenn xamul waaye la chaque ne daal suñu borom subhanahu wa taala tàggat nab jantam mi ngi daw moog weer weeg suuf weeg yépp kullun fi falakin yasbaxuun daw boobu nag am na fu mu war a yem heure bu fa yemee suñu borom yàlla arrêté ko ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam bismillah ndax waaw ndax ku seetu nekk sa biir kër malaaka yërmande du fa wàcc loolu moom dégguñu ko ci benn borom xam-xam rasul sallallahu alayhi wasallam doon na seetu loolu yekkoon dañuy gis ne seetu moom day refléter la nga xam ne mooy li yàlla subhanahu wa taala bind kon duñ ko mën a jàpp ci nataal yi nga xam ne doomu aadama moo ko jël di ko créer ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw soxla boo xam ne daf koy yéex bu muy jël ba aada jigéen ba aada jigéen tam boobu bu leeree ba set su def war tam
koo xam ni dafa yéexe julliwul gee far aaday jigéen dikkal ko ndax bu dee ne dem na ba set gee googee da koy fay loolu moom borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni yàlla mayoon na ko temps mu bañ a julli kon julli gi nekkagul woon loo xam ni farata la mu def ko léegi léegi far nag balaa temps farata bee jeex yàlla indi ngant kooku julli googu du ko fay am na nag ñoo xam ne dañ ne maadaama julli googee dab na ko ci biir waxtu wi moom julliwul ba ba dawra bi di ko di ko di dawra bi di ko dikkal muy la koy la koy dikkal loolee su su jeexee da koy fay su ko defee daal dañ koy wax la gën ci moom ngir génn ci ixtilaaf ci borom xam-xam yi mooy bis bu setee mu fay gee boobee nga xam ne daboon na ko ci waxtoom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaw bismillah lan mooy nan lañ mën a def ba moytu ci ngistal mooy xeex ak suñu bakkan ak ñaan yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na abu bakar ni saddiq kaay ma jàngal ak ñaan goo xam ne dañ la musal ci bokkaale mooy da nga naan allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam del wax yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ma lay bokkaale fekk xam naa yàlla nag ma musal ca ma lay bokkaale ci lu ma xamul ndax loolu nga xam ne mooy shirkul asfar ñu koy tuddee shirkul xafi bokk na la ci gën a jafe mucc ci bàkkaar yi yàlla na yàlla musal ñu ci waaw loolu moom mooy mooy ngistal su ko defee daal da ngay xeex ak sa bakkan kéemtalal kattan gannaaw ba nag di ñaan yàlla foo toll yàlla nangul la say jaamu yàlla te musal la ci ngistal ñu ngi noonu wallahu aalam naam bismillah ndax nit koo xamee ne nii dañ koo gis ñi def propagande boor góor jigéen ndax am nañ droit wax yàlla na ko yàlla alak ala kulli xaal bu dee ñun suñu diine duñu ñaan alkaange ci nit mën nañ ñaan nag alkaange ci mbooloo man nga wax ne ñépp ñoo xam ne dañoo bëgg dugal góor jigéen suñum réew yàlla na yàlla alak leen waaye doo wax Jean mi wala Paul mi wala diw mi rawatina koo xam ne dafay nekk ci julit kenn du ko ñaanal moom ci boppam yàlla alak ko amaa nag ñiy jëf jëf ja loole mënees na la alak mi ngi mel ne rek yonente bi alei salaam mu ne laana allahu alwasila walmustawsila yàlla yàlla day rëbb na bépp jigéen boo xam ne yaa ngi toog di létt ay mèche mooy di yokk karaw ak kañ ko yokkal ak ñay jamook ñay nangam waaye nag doo fekk jigéen buy yokk karawam nga naan ko yal na yàlla rëbbale déedéet loolu daal kon dañuy rëbbu mbooloo ak ñay jëf jëfi mbooloo amma bu dee nit ci boppam moom loolu moom kenn du ñaan yàlla rëbb rawatina koo xam ne ab julit la mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal xam naa ñu ngi jégalu rek wax dëgg yàlla dafa am ñu ngi nebbi fu sori daf na rek dafa naafila mu jàng benn saar yëkkati loxoom bëgg a rukkoo far ne na ci teg beneen saar ndax yëkkati ba mu yëkkati loxoom day am lu ko ci war ci sujud déedéet loolu mbokk amul lenn loo xam ne dalay war ci sujud ci yëkkati ba nga xam ne nii yëkkati nga ko say loxo gannaaw ba it mi ngi noonu kii naafila bu ko neexee teg la ay saar kii julli faat farata sax bu ko neexee teg la ci ay saar mbokk kon mi ngi noonu xam naa mbokk yi yor seen tikke yi mi ngi fàttali ñi indaale 1000 francs bëgg ko barkeelu ci jàkka ji incha allah ñi ngi mbokk yaa ngi ci bunt yi di leen xaar ñi ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala daje bi ñu fi daje yàlla na ko barkeel def ko daje bu ñuy yokk suñu wàllu diine ak suñu wàllu adduna yépp defal ñu ko daje bu ñuy daje ca firdawsil aala mu defal ko suñuy waajur defal ko bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain